dalen ak jam suñu eh, émission suñu yaakaar sen bok sen surga mari Diop ñëwaat ni ngi koy faral ak suñu centre yakar sax suñu ay émission suñu yaakaar ni ki ay talibé insa ñuy faral di jukki eh, ni ngeen ko xamee niñ ko baxo def ay pion ci yalla insa wala ay jukki yu nekk ci bible bi tay ñuy wëyel li nga xamné mom lañu tambalé muy jukki si dundub yonent yalla Moussa niñ ko gisé ci bible bi te gisoon nañu fi ñu mujjee woon <coughs> mooy bi nga xamante ni Moussa ak Aarona euh, dem nañu seeti ji firaw Firawna buuru Misra wax li leen yàlla wax maanaam na bàyyi xeet wi ne waaye bàyyi waa bànn israel ñu dem waaye gis nañu na bañee waaye na Firawna yemu rek si bañ dafa yokkoon sas yu nga xamante ni moom la sasoon waa bànn Israël gën ko taral gën ko mettil ba ñu mettitlu ko ba Moussa si boppam sax mettitlu ko te ñu dégg li nga xam moom la Moussa waxoon Moussa dégg loolu bi bi ko di ko di ko li ñu ko wax leen moom la leen Firawna sas Moussa dégg loolu dellu si aji sax ji ne ko ay borom bi loraange bi nga yóbbee mbooloo mi nag loo ma doon yónnee ba ma dem si Firawna di wax si sa tur ba tey mu ngi lor bànn Israël ñooñ fàttalikuwuloo leen sax kon ñu gis moom la Moussa delluwaatoon si yàlla di wax ak mom manam li nga xamne mom mo xewon gannaaw bi nga xamne dafa waron dem deug deug ngir xettali ngir yew yi bànni israel si buumu njaam gi len firawna yewon waye gisoon nañ ñu demee foofu non te njaam nga gënon na metti firawna gënon nako taral waye ñu gis tay li nga xamne mom la yalla wax Musa si sar euh, jurom ben donc dañuy gis ni aji sax ji wax Musa ne ko di nga gis legi ni may def firawna loxo bu ko ëpp dooley tax mu bàyyi leen ñu dem biir na ma ne loxo bu ko ëpp doole mooy tax mu dàq leen réewam yàlla dellu waxaat Moussa ne ko man may aj sax ji yàlla man ji moo di sama tur bi ma feeñe woon Ibrahima te ñii laa feeñe woon Isaaxa ak Yanqooba it waaye sama tur aji sax ji leerul ko woon leerul ma ko woon te itamit dama façon ak ñoom kóllëre ngir jox leen réewum kanaan réew mu ñu nekkoon ay doxandeem ma déggal sama bopp yooxi bànni Israël gis waa Misra def ay jaam te fàttewuma sama kóllëre ga ak Ibrahima ak ak euh, waaw ak euh, Isaaxa kon nag waxal bànni Israël ne leen man maay aji sax ji maa leen di sippil yenn waa bani Israël li leen waa Misra sëf te maa leen di teggil njaam mi ñu leen teg may talal sama loxo mbugal leen ak ay kéemaan ba gore leen maa leen di def sama ñoñ di seen yàlla di xam ne aji sax ji maay seen yàlla ji leen di teggil sas yi leen waa Misra teg maa leen di yóbbu ba ngeen dugg réew mi ma giñoon ne maa koy jox Ibrahima ak Isaaxa ak Yankoba te maa leen koy moomale man aji sax ji ba Moussa waxee loolu bànni Israël dégluwuñu ko sax ndax xool yu jeex ak njaam gu métti kon gis nañ ni <coughs> yàlla waxee ak Moussa waxaat ak moom bi Moussa demee wax ko waa bani Israël seen xol ak seen liggéey dafa taroon dañ ko yokkoon ba taluñu woon sax déglu Moussa gisuñu ko dégluñu woon musaa aji sax ji wax Moussa ne ko demal wax Firawna buuru Misra mu bàyyi bànni Israël ñu génn réewam Moussa tinu aji sax ji ne ko waaw ndegam bànni Israël sax nanguwuñu ma déglu nu ma na di déggalee man mi tële wax aji sax ji nag wax ak Muusa ak Aarona jox leen ay ndigal ci mbirum bandi Israël ak Firawna buurub Misra ngir ñu yeewi bandi israel ba ñu génn Misra keroog ba aji sax ji waxee ak Muusa ak sa réewum Misra da ko wax ne ko man may aji sax ji na nga wax firawna buurub misra li ma lay wax lépp teewul Musaa tinu aji sax ji ne ko waaw waaye man dama tële wax mbaa firawna dee ma déglu kon mbokk yi si eh, saar aaya fukk ak juróom ñett bi ba fanweer bi dañu gis ni ba tey ragal ñàkk wóolu gi nga ne moo nekkoon ci Musaa lay yi nekkoon ci moom ci ñàkk mën a waxam xalaat na ni moo tax firaaw na xëy na bañ bàyyi waa bani israel mu génn waaye gis nañu ci kaw li nga xamante ne moom la yàlla wax ni dina ko def jaare ko boppam ci dooleem ngir génne waa bànni israel misra mu nekk lu am solo kon ñu gis ni yàlla wax na waaye firaaw na bañ na yàlla wax na jaare ci Muusa ak Aaruna waaye firawna gën na taral sas wa mu sasoon sëfoon waa bànni Israël gën na taral njaam nga gën a metti njaam nga ba réew ma xeet ma nit ñi nangootuñu sax déglu Muusa kon yàlla waxaat na itamit ak Muusa wax ka li mu namm li mu fas yéene def ak naka la ko nar a defee ndax firawna mu ngi bëre ak yàlla ak wax yàlla ak ndigal yàlla ndax yàlla am na kàttan dëgg-dëgg ngir firaaw na wañ loxoom yeewi xeet wa kon loolu mooy li ci topp mooy li ci nekk ñàkkul ne mas nga dégg nettali bi waaye xëy na ñàkkul ne xamoo woon dëgg-dëgg nañ ko nettalee ci téere bu sell bi kon dina jox digg daje yow mi baaxoo di topp si beneen xët beneen waxtaan beneen jukki waaye balaa boobu di wax ni say laaj seeni laaj mën ngeen ñu ko yone ni ngeen ko baaxoo di def te nañ leen ci indil ay tontu ku ci nekk si yéen ak la ko gën a soxal ngeen laaj ñu te bu ko defee ñu jukkee si téere bu sell bii di biibal bi indil leen ci ay tontu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje lu yàggul dara si beneen jukki ci dund yonent yàlla Moussa ci digganteem ak la ko yàlla doon wax su digganteem ak la doon wax firawna ak naka la firawna yont yalla musa ak yalla ak ban Israël di mujjé si benen jukki jërë ngeen jëf na yalla sàmm te barke leen defal leen jam te defal ñu jàmm seen mbokk seen surga malik Diop ba benen yoon si benen émission suñu yaakaar jërë ngeen jëf